الشهر قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñuy seetaan ci alhidaya tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal àq di leen ko balu di ñaan yàlla boole ñu jéggal ñu ñëwaat rek àndaat ak yéen ci suñuy leçon école du ramadan mu mel ni suñu leçon bu mujj ñi ngi doon jàngale wala di jàngatantoog yéen ci li ñuy tudde alxubb muy amour ci ñenn ñi waaye ak mboolem ya nga xamante ni jàngale nañ ko ca nit ki nag bu fexee ba mbëggeelam sincère ci diggante ak moroomam jullitam ak képp koo xamante ni sax ba ci ki dul jullit waaye daf ci rawati moom jullit bi mu fexe ba mbëggeelam tamit sincère ci digganteem ak moroomam waaye ak boroomam bu boobaa nag dina ko yóbbu ci point bi ñu war a waxtaane te mooy arrahmatu muy yërmande ndaxte nit bu bëggee rek yërëm waaye bu demee ba mbëggeel amul rek yërmande day dàqu kon dañuy yëg ni mbëggeel gi ñu doon waxtaane démb moo ñuy yeggale tey ci ñu xam ni kon nag la cay topp mooy ñu yërëmante ci suñu biir bu ko defee kenn ku ci nekk di yërëm ka nga xamante ni moom tene na ko ñi nga xamante ni soxna si ak borom këram kenn ku ci nekk yoreel na moroomam yërmande ca façon ba nga xamante ni si moom lañu ko mën a weccantoo ci seen biir waaw ndax li taskunu ilay haaja mawadda wa ma da koo lal bu ko defee kenn ku ci nekk yëg ni cofeel fu ma am rek yërmande dana jege si mooy waral nga gis ba ci waajur bu bëggee doom rek dafay commencé am yu mu koy jox kado yu mu koy offrir nga yëg ci ni la tax kado ba mën ne yegg la tax mu ko koy mën di jox ci saab boo xamante ni séere génn na wala muy dugg si waat ci këram la ko waral mooy ni cofeel gi mu am ci moom cofeel googa la am ci yaay ji tamit ba tax mu yëg ni am na yum koy bëggale ngir cofeel googa noonu di mën a di mën a sax loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni dee leen joxante ci seeni biir ay cadeau kenn ku ci nekk na xool lu mu mën a offrir moroomam ngir seen cofeel di gën a yokk ci seen biir waaw ndaxte nit ki boo fekkente ni yéen a ngi échangeante ci wàllu jox-jox dafay tax tamit mbëggeel gi nga xamante ni moo doon dox seen diggante di a dëgër boobu dafa bokk ci li yàlla sopp ndaxte alquran sax bi ko yàlla di melal dafa ni hudan wa rahmatan lil alamin sayduna muhammad tamit bi mu ñëwee dani ni rahmatan lil alamin la bu ko defee yooyu dafay am yeneen yuñ ciy déggee yiñ ciy dégge mooy ni bu ñu tuddee rahma muy baatu cofeel yërmande dañu ci yëg ni saa boo ko déggee rek ndekete ay xéewal nga ci biir foo déggee yërmande rek ñu tudd ko danga ngay ni ndekete ay xéewal nga ci biir yàlla nee na jox naa leen alquran luy orienté nit ma nga ca waaye rahmatan tamit moom la moom alquran lil alamina ndaxte mooy tax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko doomu aadama yëpp mu nekk yi mu tudd ci alquran mu nekk yoo xamante ni bis bu nekk doomu aadama ba am na yu ci ay gëtam di tegu waaye am na yoo xamante ni sax ci dégg la yam waaye bum ca mënti nekk rek nga yëg ni ay xéewal la yoo xamante ni yow kese-kese mënaloo ko sa bopp comme mënaloo ko sa bopp nag ci xéewal googu war nga ci bàyyi xel sa borom bi nga xamante ni moo la ko xéewale waaye ci xéewal googu tamit nga yëg ni ci la la laytaayale li nga xamante ni mooy yërmande gi nga xamante ni moom nga war a yërëm ci nga tene moom nga war a yërëm ki nga ëpp doole moom nga war a yërëm ki nga xamante ni si même bu dul ëppalante doole sax mais am na tenente gu am ci seen diggante yéen ñaar ba kenn ku ci nekk bu jëflantee yërmande rek kenn ku nekk dag ci mujj gis boppam waaye yërmande fu mu amit di nga ci mën a dégge ndaxte mën nañ ci dugalaale suñu beneen point bi ñu tuddee al adl la nit ki buy doxal yërmande dañuy bëgg ci moom yërmande gam yi doxal mu teg ko ci maandu maandu mooy lenn lu ci nekk rek nga jox ko la ko war a jox waaye doo ci ëppal doo ci yéesal waaye doo ci jëfandikoo jëfandiku boo xamante ni du noonu bu ko defee da yëg ni liy dimbali nit ki ci mu mën a def loola tamit mooy li ñuy tuddee taq diir nga xamante ni mooy fexe ba affaire yi di jaar yoon juste milieu di am du ëppal ci ci jëfandikoo sofaan waaye buy jëfandikoo yiwit ci na ko yàlla bëgg rek la koy defee màndu gi nag di dox ci lépp mandu gi ñu koy soxla ni yërmande di doxe ci diggante yaay ak doom di doxe ci diggante baay ak soxnaam di doxe ci diggante xarit xaritam ak kaneen ku mu mënti doon noonu la ñuy bëgge tamit maandute googu noonu di dox ci diggante yi ci ni nga xamante ni noonu la ko yàlla bëgge te ñoom ñaar ñëpp yàlla daf ko jàngale ci biir koor ndax ndaxte yërmande ni mu la ko jàngale ci koor mooy daf la digal ni la koor mooy nga bàyyi lekk bàyyi naan ca yi nga xamante ni ca la bokk waaye maandu ci lépp loo xamante ni tamit naka su dul noona la ba pare di respecté ci say cër yépp lii la ci yàlla diggal ci nga war a jëflanteeg noonu bu ko defee la nga ciy déggee mooy ni ci ñàkk lekk gi nga ñàkk lek ak ñàkk naan bi nga ñàkk naan yàlla ma nga la cay jangal ne la nit bu maratee nang ko nang ko natte ci sa mar gi nga maroon ci biir koor yàlla ma ngi la ni la bis bo demee ba gisati ko khif xiifam bo na nang ko jangat ci sa khif bi nga che ci sa biir koor bu ko defee mooy tax ba nit rek am nu mu mel ca façon ya nga xamante yow boo mel nga yëg ni kii de la ma daloon moo ko dal na waaj defoon ca ba nga xamante ni si mar na di wër fu mu fexe ba am ndox munu ko am di wër ci àll bi ba yam ci benn teen mu summi marakiisam ndax moo fa sës ngir naan ca ba mu naanee ba pare di wiññeeku gis xaj bi taxaw ci côtéem di di di di di di xappaat ni xaj di génnee làmmañ boobu mu xool ko mu xool ko ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni xaj bi li ma daloon rek a ko dal ndaxte dafa mus mar gis na mu méttee woon moo tax mu xam ni am na mbindeefu yàlla boo xamante ni la ko daloon dal na ko kon na def yittey satisfaire mbindeefu yàlla bi ndax yàlla woon na ko loola na mu mel xam na mar ni mu méttee mu def yitti waat rootal xaj bi ngir xaj bi naan mu yëg ni def ci jaamu yàlla ak yàlla may ko mu dund loo xamante ni bu ko dundul woon du xam ni kii looloo ko dal kon ci koor lañ koy jànge maanu ga ca lañ koy jànge ndaxte xale bi gën a ndaw buy jàng koor boo ko du ñi ci ëpp boo leen dugaloon ci néeg dugal leen ci ñam tegal leen fa ñam danañu màndu ndax seen koor ba duñu duñu ca laal wala duñu ca lekk wala ñu naan ci kon ndekete xale bi gën a ndaw ma nga cee jàng maandu yow tamit yaa nga cey jàng maandu ndaxte toujours boo woore lépp lu sa yoon nekku rek yaa ngi def yitte bañ cee dugg lépp loo xamante ni moomoo ko tamit yaa ngi def yitte bañ koo jëfandikoo lépp loo xamante ni daf lay indil beneen musiba bu mu manti doon rek sa mandute dana la may nga yëg ni loolu waruma ci dugg waruma ci intervenir kon ndekete ñaar yooyu noonu dana dimbali jàmm bi ci lu mante doon yàlla ne nag mbëggee la nga noonu waaye li ñuy wax yërmande tamit mu ngi noonu kon nag ida kuntum tuhibbuuna far xamu xalqi waaw yàlla ne na bu fekkente ni nag sama cofeel ngeen soxla te sama cofeel fu mu ñëwee ànd ak ay xéewalam maa ngi leen di ñaan mbindeef yi ma am ngeen respecteel ma leen mbindeef yi ma am ngeen yërëmal ma leen ndax ci biir yërëm bi leen di yërëm ci ngeen di amee sama cofeel man borom bi subhanahu wa taala moo tax ci biir cofeel yàlla bi muy wax ci wàllu mbokkoo mu jël cofeel utiliser ko ana rahmaanu wa xalaqtu rahim wa shaqaqtu laha isman min ismi kon nag ko jokk ma jokk la waaye képp ko def beneen yitte sofaan ci dog mbokk googu yàlla nee na ma dog la ndaxte li ma bëggoon mooy yërmande di mën a dox moo tax ma jël ci sama tur bi ñuy tuddee kër yee ci wut ci li nga xamante ni mooy arrahmat muy mbokk ma fexe ba di ko doxalante ci seen biir yéen yéen julit jullit ñi kon kenn ku ci nekk na respecté li nga xamante ni si mooy ñaar yooyu benn bi dellu ci yërmande benn bi dellu ci li nga xamante ni mooy maandu ñu koy gën a jànge ci suñu biir koor di ko bàyyi xel loolu mooy nekkoon suñu leçon tey wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu الشيطان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين